dañu respecté nit ñoom duñu ay justice justice bi dafa am Sénégal am na justice police scientifique bi li mu war def mi ngi koy def dara nit booy wax si moom da ngay wax si moom loo xam voilà dëkk dëru Pikine ñu bàyyi ko Pikine fatu fi Pikine fatu ñu góor jigéen fatu ñu bandi fa nga jël taf ko ne noo diw moo rey te ki nga wax amoo si lu la leer police mi ngi def liggéeyam gendarmerie mi ngi def liggéeyam ñun ay civil lañ dañu war a yam place civil policiers yi bu dee xarañ ñoo ñu gën a xarañ téeméeri junni yoon Adrama sar mio dossier bi xam nañ ko depuis Tëngéej avant mo ñëw fi pigine bu fekke si loo xam la jaar lepp lu ci walé dina leer mais yow nekkoo Sénégal nekkale woo Sénégal taf sa life bëgg bës di waray jël photo nit di ko taf yooyu rafetul fatu ñu bandi ñu sàcc li ñom seen biir la ñom neen la ay du yam si bop borom si ñom neen la ñom xamal dinañ seen biir ñuy dëgg pigine dëggo ben responsable ben nitu pigine bu mat pigine nga gis mu wax ñi bañu rey la si àll bi mbaa nga am sa problème yow na nga sa bopp yow mais nekkul bul ko jël di ko taf si kaw turu Pikine ku dee kenn du wax si moom naka sudul noonu mais dama ne fii ku nekk xam nga sa problème mu bopp lan la man maa wax man maa jël sama responsable bopp kuy attaqué ñëwul nga attaqué ma fi ma dëkk